asalaamaaleykum mbokku internetu 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun euh, su nekk bu ngeen ñu gisee nag xam ne 8 mars la ñu wax te bu ñu nee 8 mars nag mooy journée mondiale de la femme jour bi nga xamante ne bi moom la ñu jagleel képp koo xamante ni rek jigéen nga muy jigéen ñi nga xamante ni dañuy bay seen waar nekk ay femme batant ñun moom la ñu jug tey opté ko ñun waa 24 actu ngir ñëw seeti leen waaye tamit daal di leen di sargal ndaxte bu ñu nee jigéen jigéen mooy yaay jigéen mooy àdduna tey jigéen mooy société te nag Sénégal dafa baaxoo am jigéen yoo xamante ne nii ay référence lañu dama dama naan saa su nekk les femmes sénégalaises ñoom ay femmes battantes lañ ndaxte foo foo nekk rek branche boo dem da ngay gis jigéen ñi ñoom ñoo fay ëpp di daan seen doole di dimbali rek lépp rek ngir seen njaboot tey nag moo tax ñoo seeti soxna Fat Fall Diabara moom nag mi ngi yëngu nag ci wàllum céréales moom la ñu féggool nii rek nar a ànd ak moom ci bis bi nga ne bii rek moom lañ moom lañ dara jaale képp koo xamante ni rek jigéen nga soxna Fatou ñu ngi lay nuyu di am mbégte bu baax a baax di la dalal ci suñu émission sargal jigéen Kelle. waaleykum salaam wa rahmatulah euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen siyaare euh, di am mbégte kontante ci ni ngeen dikkee fekk ma fii ci sama kër hmm, di am kontante bu mag ndax fi ngeen dikke nii daanaka fii laa ko soxlaa ndax bu ne bi mars ne jigéen jigéen mooy yaay jigéen mooy maam jigéen mooy bàjjan jigéen moo nekk ci kër di yor ak njabootam. wante jigéen mooy nekk ci këram di liggéey ngir dundal ak njabootam ndax kër jigéen rekk ko yor kon bu fekkee ne dañoo sàkkal bis bu moomeli jigéen ñi muy le 8 mars ngeen ñëw ba sama kër di ma seet ci li may yëngu ci ci ci ci ci samaw dundin ci samaw nekkin ci sama koñ ànd ak samay jigéen di liggéey ngir daan suñu doole dañu am kontaante ak mbégte ci ni ngeen dikkee fekk si ñu. sama faat kon ni ma ko waxee sànq yéen a ngi yëngu ci wàllum céréale ñu bëggoon a xam liggéey bi naka lay demee. waaw ñi ngi yëggu ci wàllu céréale comme dañoo toll ci jamono yi bay dunde kon ci céréale lañuy liggéey dañuy defar cere dugub defar cere mboq def cere ceeb def cere ñebbe lépp rek ci dundinu doomu aadama ndax jamono ji toll nañ foo xam ne dañoo war di dund ci li ñuy bay ci suñu Sénégal gi kon mboq mi fi lañ koy bay dugub ji fi lañ koy bayee ñebbe ji fi lañ koy baye ceeb bi tamit fi lañ koy bayee ndax ku dem waalo xam ne ceeb lañuy dundee muy ceebu mbay ba ci Casamance gi dañ fay bay ceeb boo xam ne Sénégal gi la jóge kon dañuy am kontaan ak mbégte macha allah rek. ndax groupe la doon groupe boo xamante ne ni moom ngeen dajale ngir di liggéey wàllum céréales. groupe la dama woo sama waa koñ ñu defal suñu sëya dem ba Jurbel defal fa suñu sëya bu legal bu am euh, nit ya am réseau de commerce. ñuy liggéey daan def taaba taaba jënd suñu dugub defar jaay comme ni ñu koy waxee waraak di defar suñu dugub di jaay defar cagri defar sànqal defar araw defar cere defar kafe euh, di jaay ñu dem ba ma demoon 3FPT déposé fa ak ONFP euh, pour bëgg ñu defar ma céréale locale bi ma mille déposé 2018 laa déposé woon ba le 8 février bi lañ ma woone ma sa demande génn na defal si ma formation foog naa la vide lañ ma commencé loon ba le 17 ma pare. kañ ngeen a euh, sos euh, bile kuréel. kuréel bi ñu ngi ko sos 2018 euh, lañ ko sosoon defar 2018 lañ ko sosoon pour mbooloo di liggéey céréale man yàgg naa cee yëngu gaa parce que dafa amoon commande lëkkalool may defaral ko céréale mu di ko yóbbu bitim réew di ko jaay mais boobu amaguma kayit parce que booy defarul dem bitim réew war nga am niniyaa war ngaa am registre de commerce war ngaa am euh, code barre war nga am fara te bu fekkee déposé woo ba gouvernement bi jàppale la pour nga am fara am nga ak pour nga am code bar day jafe moo ma taxoon a déposé sama GIE ma woo sama waa koñ ne leen ñëw leen ñu ànd ndax mbooloo mooy doole parce que su ma amoon tonne dugub di ko defar tey su ma àndut ak sama mbooloo du ko mën a liggéey loolu moo tax ma woo sama waa koñ ñoom ñëpp nag ñu ànd nangu ànd ak man ma jiite GIE bi ñuy defar céréales locales. ñaata tonne ngeen di faral di defar ak tamit heure bi ngeen di jug pour euh, amal liggéey bi. heure bi ñuy dog di amal liggéey bi su ñu xëyee huit heures rek. neuf heures pile la ñuy joxe rendez pile la ñuy joxe rendez-vous dix la ñuy wàcc. dix-huit la ñuy wàcc. ngeen di faral di defar ñaata tonne. maanaam ay chaque jour mën nañoo defar cinq euh, barigo muy cinq cent kilos chaque jour mën nañ koo defar parce dugub dafa gaawut. bu fekkee da ngaa bëgg mu sell dafa gaawut parce que mbooloo lañ jeg sur rek mën nañoo defar cinq cinq cent kilos euh, kii euh, cinq cent kilos yoo xam ne yu sell lay doon su dee dugub la dañuy def bu dee cere la dañuy defar cere tey cere rek la ñuy defar mu pare su ëllëgee sànqar rek la ñuy defar bu ëllëgee araw rek la ñuy defar yaakaar naa ne ngénte lii ma jógee cagri bee ñuy tudde ñun ñi noo ko defal ci ak di jàmbale. macha allah léegi bu ngeen paree produit yi naka ngeen di def ba jaay ko da ngeen koy exporter wala ndax mën na génn ba dëkk bi. waaw mën naa génn parce que am nañ fara am nañ fara ndax dañoo ànd ak euh, beneen groupe bu tudd ànd suqali suñu entreprise suñu ay soxna ay Touré nekk suñu présidente ñu ànd ak moom di liggéey ñu am fara ca ànd suqali suñu entreprise moom mu accompagner ñu ba suñu defaree suñu sëyee dañ koy boole ànd suqali suñu entreprise ba mën a yóbbu suñu dugub bitim réew waaye jamono yi ñu toll ñi amaguñu lu génn parce que suñu doole soreegut li ñuy defar ci dëkk bi rek lañ koy lañ ko yemaleegul waaw danañ jaaye ba Dakar waaye nag suñ sañoon dañuy am ku ñu jàppale ba ñu mën a génn jaay ko bitim réew. ndax liggéey bi yomb na. non non defar dugub yombut boo bëggee mu sell yombul su fekkee da ngay defar eh, liggéeyu fara fara rek mën naa gaaw mais boo bëggee mu sell te set. liggéey dugub yombul ndax da ngay xëy génne sa dugub peese xam ñaata kilo la am nga lay ko ba suuf si génn nga yóbbu ko soqali ji ko ca machine ba indi layaat ko foofu ko sebet ko doog ko wallu ji ñu opté suñu choix ngir ñëw ci yéen mhm. ndaxte ku wax dugub sànq comme ni nga ko waxee yombut a defar ndax di ngeen ci jànkoonteel tamit ay jafe-jafe wala yenn besoin yoo xamante ni bëgg ngeen ko te amagu leen ko jafe-jafe yi mooy mm, boo amul financement sab liggéey du du yomb maanaam il faut nga am ci looy jàpp ba loo bëgg a jënd man koo jënd tey mën ngaa gis benn commerçant bu la jàppale abal la su la abalee boo jaayee da ngay dem delloo ko wala ñi ngay àndal di liggéey ku ne nga ne ko indi nangam ñu boole liggéey parce que dañuy dañuy dañuy jóg ak daanu rek amaguñu doole bu bu am solo boo xam ne am nañ capital buñ denc boo xam ne tey boo buñ gisoon ku ñu engagé ñu mën koo liggéey léegi dañuy dañuy def taaba taaba rek ndànk ndànk rek. yéen groupement bi nga xamante ni yéen nekkee ci biir seen différentes âge fan la commencé comme xa ñaata at la ñu am ñi nga si ñoo bokk ci biir groupe bi. ñu nekk ci groupe bi maanaam ñun li li tàmbalee 30 ans jëm kaw ñu tàmbalee 30 ans jëm kaw parce que dañ lay wax boo defar sëy jël xale bi am 18 ans parce que kooku day sëy dëkkul ci sa koñ soo bëggee mbooloo mu la jàppale dëgg dangay ngay seet gone yi koñ ñi dëkk ci koñ bi mooy jeg gi fiy sëy ak mag ñi nga xam ne am nañ kàttan ngir liggéey ñooñu lañ jël dugal ko ci suñu sëy bu ngeen defaree dugub pare yéen tam yéen a koy jëlaat en même temps tamit jaarale ko seen bopp ñoo koy jël ku ci nekk suñu defaree dugub ba pare su fekkee doonul lu ñu liggéeyloo comme dañoo liggéey dañoo euh, euh, kii ba liggéey rek teg ku ne da ngay jël dem jaay parce que groupe bi macha allah ñëpp ay jaaykat lañ xëy rek liggéey ñi nekk ñëpp ñoom la ñu liggéey ku ci xëy rek yaa ngi wuti loo def même bu fekkee ne jour buñ defarul dugub sax ku xëy di nga wuti loo def parce que. ngeen ko taamu rythme bi la <laughs> macha allah soxna Fatou am na solo fi ñuy daanelee ak yow rek ñu bëggoon nga lancer benn message pour yenn femmes yi nga xamante ne bi ñu ngi toog naan liggéey bi dafa metti céréale dafa metti wala toog bëgg a xaar rek ñan ngay wax ñooñu noonu. xam nga liggéey bi dafa metti yaakaar naa ne jigéen bu xëyee dara metti ko dara mettiwul ak njabootam. war naa wuti lu mu dundale ak njabootam doon na sa borom kër daa am dépense bu mu lay jox rek war ngaa mën a wut loo xam ne yaa ko defar ci sa jëmm yaa dem ñaqi ndax suñ borom jaamu yàlla ak liggéey moom lañu moom la ñu fi indee kon benn liggéey méttiwul ci man ni ma ko gisee benn liggéey méttiwul comme yow da ngaa juddu sa yaay nga fekk ko muy defar dugub di defar fonde di la jox ngay naan muy defar cere di la jox ngay lekk na ko sa yaay doon ñaqe ba man ko jàngal la ko man ko war nga cee mën a daan sa doole parce que lu ñu jàngal yaakaar naa ne fii ci kër Baye Thierno Fall gii jamonoy sëñ Fall ñuy liggéey jumaa ji yaakaar naa ne mbana gu taal nañ ko fii man bi ma xàmmee maa ngi fekk sama yaay ñëw yor mbana goo xam ne euh, euh, barigo ceeb ak nag la mbana gi di def te yaakaar naa ni xale bu màggi kër Sëñ Xaadir gi maanaam 78 79 ba 80 ba fi Sëñ Xaadir du jóge fukki xale téeméeri xale ak juróom fukk lan daan nandal indi ko fii sama kër baay gi yaa ma dem a sekk yor leen ñu leen di soqal chaque jour bari ko dugub kon ku jógee ku juddoo ci kër gi rek war nga ko mën fii kër baay ci an Fall yaakaar naa ba ñuy liggéey jumaay Touba ji lu fa nit lekk rek fii la jigéen ñi jógee togg ko kër baay ci an gi muy samay mag ñi ma bokkal baay ak sama yaay ak sama soxna papa yi nekk ci kër gi yaakaar naa ne fii moom wax dëgg yàlla baasub liggéeykat la mhm. ndax baay ci an Fall su fekkee dafa ànd ak sëñ Fallou tàmbali jumaa ji ci jamono yi sëñ Fallou ba 1963 ñu ñu julli ko te liggéey ba fii la daan jóge yaakaar naa ne fii moom. wax bërëbu liggéeyukaay la <laughs> dëgg la ndax da def tamit ay formation yooyu. waaw formation bi mooy bi ñu doon def ci semaine bi waa ay ONF waa 3 waa ay ONFP ñoo ñëw defar nu formation parce que dugub luñ xamoon la mais dañu cee yee loo xam ne ni xamuñ ko woon parce que mën a defar dugub denc ko at te du larax dugg noor. waa ONFP ñooñu ci yee wax dëgg yàlla ñu mënoon dugum lañ ñu xam nuñ koy selele waaye war nañu ci loo xam ne nii xamuñ ko woon wax dëgg yàlla ci formation ñuy ñaanal nag ONFP ak trois fpt mayaat yu yeneen formation ndax ñun dañoo jël ngir liggéeyal Sénégal wala lazim loolu moom dañ ko boole ci suñu dund incha allah rabbi macha allah merci beaucoup sono Fatou amoon nañu mbégte bu baax a baax doon la dalal ñu bàyyi la rek nga daal di tàggoo ak mbokk internet yi waaw di di sant bu baax ndax euh, lii ñëpp bëgg nañ ko te mënuñu ko am dangeen ma bett sax nekkoon dinaa woo ñi nga xam ne ñoom lay àndal di liggéey ñu ci bari dañoo nekk ca tudd ga ndax foofu lañ def sees ba muy kër sëriñ Alaaji Buso Accu foofu lañ def sees ba foofu la ñuy liggéeyee bu fekkutoon ne dañoo nekk seen tudd ga ñoom dina ñëw ndax ay jàmbaar laa àndal yuy liggéey di leen sant bu baax di am mbégte kontaante ci yéen macha allah ndax lii yombul bëgg ko taxul nga am ko di leen sant bu baax di leen ñaanal seen site bi yàlla na bokk gi site yi nekk ci kaw ci barke Seex Xaadim yéen ci liggéey yi yàlla na ngeen dem ba yit seen yor seen siti bopp ndax lu waaye du def lu ne nag bëgg nga caa kawe ba ku ku la gis xam ne yow mi yàgg nga sonn ñun tam di ñaan suñ borom jàppale ci suñu yare céréale bi ku ñu gis nag ñu ñaanal ñu dugub sekkee suñu céréale bi sekkee ndax loolu lañu bëgg ñu tam suñ sa dañuy ñaan ba am suñu unité bopp di ci liggéey ba ku nekk mën a am ci li ñuy liggéey nga dem ci baytul haram siyaare ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci jëf ci kër Seexul Xadim gi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg maa ngi leen di sant bu baax di ñaanal sama ay waajur yàlla suñu borom yoo def leen ci àjjanay firdawsi ya te sama mag yi ma bokkal nekk fii ci kër gi suñu borom defal ñu xewal gu yaatu ak suñu njaboot di ko ñaanal Sénégal gépp di ko ñaanal àddina si yëpp di ko ñaanal yoonu murid wépp di ñaan jàmm ci réew ah, jamono yi ñu toll muy ndog mi yàlla ko suñu borom jëlee te fan yi nga xam ne Sénégal yëngu na yàlla si borom bi su ndox mu sedd maa ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm bég naa Euh, jërëjëf euh, soxna Fatou amoon nañ mbégte bu baax a baax doon ànd ak moom ci suñu plateau spécial sargal jigéen dégg ngeen ni mu ko waxee ni nga ko waxee sànq rek ci njoxteel jigéen mooy àdduna jigéen mooy yaay te ñun nag les femmes battantes lañu ñu choisir pour ànd ak ñoom rek daal leen di gunge daal leen di sargal tamit ci 8 mars bi lee gis nga ko ñoom euh, li dugub lañuy liggéey te xam ngeen ne dugub liggéey ko yombul dégg ngeen rek li nga xamante ni wax na ko ci mu mbooloo mu am solo moo xamante ni dañoo engagé ñoom ñoo ànd rek daal di bile GIE lépp rek ngir bañ a toog bañ a xaar ndaxte dañoo bëgg rek seen njaboot di dundee loo xamante ni bi rek lu lew la looloo waral rek jigéen yëpp daal di jukk takku eh, di liggéey ngir rek daal di jàppale seen famille nii rek lañ koy defee ak yéen rek di leen dig daje ba ëllëg ak jaamu jërë ngeen jëf